papa mii di wax dafa ko àkk si rek xam naa live bi la seetaan dëkku fa de kii ci sëyam la nekk këram la ko fekk nii di wax ak moom te duñ wax aram jëy dëgg ci kii rek la di ñëw kii dama ko yërëm sax day jooy rek te ñoo bokk ndey ak baay ñoom kii mooy Elisabeth moo dugg ci famille bi tas ko moom moo joxoon Seyni bu jëy liggéey Elisabeth moo tas famille bi corrompre seen yaay ndax kii dafa am xaalis corrompre seen yaay ak Jules Guèye ñoom ñëpp ñu ànd nag di sot kii famille kay bu ngeen bokkee ndey ak baay da ngeen di seppi ki ci bokkul ndax deret dafa fort mais ngeen mën a kompaloog Elisabeth pour xeex ak Seyna bu Dieng mi ngeen bokkal ndey ak baay nan waxante dëgg gaay du ma ko nangu man faale wu ma xaalis kenn am naa xaalis réew naa ku ma tooñ ma dëgg sa day mais dëgg laay atte maa ngi ci Seyna bu Dieng mi man. Eh, maman ma doxee yow rek naan la maman doxee nii maman dama bi. problème bu ba Ndar ko fi ba tëj ko ba yóbbu ko si biir criminalité maanaam Arame Dieye rakam ji na kii mu bokkal ndey ak baay da ko yóbbuwoon cybercriminalité loolu lépp am na fi ci affaire moyen ak xaalis def na ko lu ñaaw lu ne seen yaay génnee ko kër ga lii dafa mett kii li ko dal dafa metti Seynabou Dieye mi billahi Elisabeth Korea nee na mu génn ci famille mooy kii kii la kii mooy madame Koné mooy Elisabeth Korea mooy madame Koné moo nekk nii xaw fu ngeen nekkoon waaye loo leen wax rek ma ñeew tant que yéen a sa def ko ay ci sama biir kër nday boobu di ko waaw Elisabeth day ñëw ca kër yaayam di tax ñu téye ko mooy famille boobu xaalis lañ gëm Elisabeth mii dafay joxe ay sukkaru koor di fa joxe ay beñe di jox ay rafetaillement moo tax mère nee na yaayu kii téye Elisabeth ak ak Jules Dieye mi nga xam ne moom mooy Aram Dieye mi ngeen di dégg ñoo mbokk ndey ak baay mais Aram Dieye moom day dem cagatu ji mbaraane ji boo amee tuuti xaalis ñëw jox ko seen yaay laa ngi dégg kii nag dafa gëm boppam ndax yaay ji def na ko da ngay sëy tubaab mu ne ko déedéet bëgg jëkkëram di sëy léegi nag ñoom ñun ñoom daal ñoom daal xaw ma nu mu ne yow da ngay continuer expliquer wala da ngaa ragal papa. Adamo ragaluma papa maa ngi continuer papa sama rakk la. ah mu man nii tey bu waxee man nii tey rek. c'est parce que danga ngaa damaa laal xoolam yaayam mooy xoolam nee naa ko nag man du ma yëkkati sama kurpañ jamais dugal dugal ko sama sama kaw yaay parce que yaay nu mu mënti mel ndey la te man xam naa ni sama ndey boppam lañ tourné mais musul mel nii waaye lépp maa ngi toog di xaar fi léegi arama ngi dund kër googu sama tànk du fa tege ma waxaat waaw. aram mooy ki nga bokkal ndey baay. aram mooy Julie Dieng waaw moom laa bokkal ndey ak baay. waaw mais yéen ñaar est-ce que mënu leen du ma wax lu ëpp du ma wax lu ëpp. waaye papa mu duggee sama kër gi tey mosu ko fee duggee yal na ma yàlla àtte ak aram Dieng ak Elisabeth Kodeya. allo ah waaw Arame bëgg ngaa jotee kii jubóog moom. yàlla tere bu deewee sax nañ ko suul te buñ ma woo te du ko jaale moom rek laa bañ sama àdduna. te yéen a bokk ndey ak baay. Ah. mais sa yaay est-ce waa sa yaay man moo leen a yemale rek ngeen juboo mu uuf leen. oui ma mën nañu ko ne suñu waxtaan. waaw continué. ñu dem fële. waaw léegi bi ñu bi ma bi Elisabeth jëlee doom ji jox ma ko man maa jongal doom ji bi ma jongalee doom ji yëgu ko wax naa ko ko ñëw fi tegu fi tànkam tegu fi tànkam waaw tegu fi tànkam tegu fi tànkam ba xale bi ni mu wëree ndax loolu yëpp ku la woolu su ma wóolu woon. ay waay Elisabeth génnal ci Elisabeth génnal sor door de famille doomu aadama yi génnal ci famille jàmmoor bi Elisabeth nga yor sa xaalis rek di leen corrompre ñuy xuloo. <coughs> waaw yaa ngi dégg. sa yaay tamit ku bëgg xaalis la. xale bi moo xam problème am la man de toute man sama juróomi fukk sama juróomi dërëm yi ma yor moom laa yor te xeebu ma sama noos te noosu jàmbur ñoru ma la preuve ba Elisabeth ñëwee di daf daf sama kaw dama ko romb ak gauche waaw. Elisabeth ëmb fi war a dem Maroc mooy yoonu France am bi mu jul ant mu dem accoucher jee Maroc bi mu ñëwee li mu wax lépp aram yóbbante waat ko mu ni neel sa mag bis bu may ñëw di jël si samay bagage dinaa ànd ak kuy dindi caméra de surveillance dinaa ànd kuy dindi bunt te effectivement ni mu ko waxee noonu la ko defee man daal damaa toog benn vendredi rek. mais mais mais yow wuy ma yaa ngi ma wuy ma yaa ngi dëgguma la de. mais papa mi mi ñëwoon doon la àgg si dafa mën a seetaanu live bi de yow sa yaay ci boppam moo woo sëñ Bada di ko yàq. naan na yow doo ko baax di wax ci yow lu bon sa yaay man seetaan naa ko. waaw loolu sama loolu rek la mën a wax ci man. sa yaay non defal ndànk rek non papa nag da nga koo war a wax loolu xanaa seetaanu live boobu. man papa papa papa du seetaan dara. waaw kay dégg déglu ma déglu non li tax ñu indi ko fii seetaan na live bi xam na ne taf naa sa yaay defuñu moo tax ñu indi la moo tax mu ñëwul ci yow. waaw loolu la papa nag wuyu ma aram jéey déglu ma aram jéey ba mu demee ci sëñ Bada sëñ Bada ci boppam moo woo sa yaay sa yaay moo yëg ci kaw live bi di wax naan suur na la àdduna ak alaaxira ay butitam bu ko mënoon a dagg doo ci juddu. sa yaay ci boppam moo doon wax naan yow moo doon wax ci live sëñ Bada sa yaay kon ko baax waaw sëñ Bada nag xam nga lu ma jotee ak moom. waaw waxuma sax sama waxu yaay. waaw léegi léegi jëwal ci sëñ Bada ma jotee sëñ Bada. waaw sëñ Bada xam nga lan moo ma jotee ak moom man damaa tëdd sama sama damaa sama kawlal di nelaw am na un jour woo na ma ñetti appel en absence jëluma ko. ci TikTok bi parce que TikTok bi ñu bari dañ may woo. ndax dañuy sëñ Bada na kii moo ko woo yónnee ko xaalis déedéet sëñ Bada njëkk a woote. sa sama sama kii bi dafa dafa càng moo tax fi mu toll nii photo bi sax mënu ma ko dindi sëñ Bada njëkk a woo kii déglu leen ma leen histoire bi ni mu demee. xaaral ah, boo ma dégloo rek ma wax la. kon waxal histoire bi waxal ñu dégg waaw bu ma bu ma kenn woo boo ma woowee téléphone li ma bëgg a wax ma ko bu ma kenn woo téléphone. li ma a wax kenn mënul tere ba du ma ko wax. bu ma kenn woo téléphone. bàyyi leen ba ma coupé ngeen doog ma woo. xam na ne nit ñi bëri na ndax 3700 ñu ngi lay seetaan. sëñ Bada sëñ Bada sama kaw lal gis ay appel en absence am ma tëddaat sama kaw lal gisaat ay appel en absence am ci whatsapp bi ma woo ko téléphone ma ni ko non astaghfirullah sëñ Bara daf ma woo ñetti appel en absence ci tiktok bi faalewu ma ko ma du ma wuy appelu tiktok ma toogaat gis ko mu woo ma ñetti appel en absence ci sama téléphone ma xool muy guddi ma jël sama téléphone woo ko muy numéro bu ma xamul ci numéro 77 700 xaw ma 300 capturé na numéro bi ak lépp ba yónnee la ko. yónnee nga ak yi ma lépp yónnee nga waa allo kookan la mu ni ma man la sëñ Bada Kéemaan ku ma xamul dégg nga ma man maay papay Adamo ma ne ko ah yow yaay papay Adamo ma ne ko Adamo ne dama koo xaw a ragal ndax day saaga mu ni ma Adamo na maa ko gën a réew maa ko gën a lii maa ko gën a laa yaa ngi dégg eh. ma daa di ni ko bu subaa bu ma xëyee dinaa la woo léegi bu ma xëyee nag tak damaa egg sama magasin rek ibbi ko toor daa di ko woo ñu konti commencé man ak moom di waxtaan mu ni ma man de dafa am ay groupe jigéen yu ma fay un million pour ma yàq la moom sëñ Bada Kéemaan ma ne ko un million ma ne ko mën naa nekk de ndax damaa am ay noon te samay noon bëri wuñu te xam naa ñaata noon laa am matuñu cinq moom sëñ Bada de mu ree ni ma a sa kaa bi yàgg naa koo gis TikTok bi la xale bu jigéen bi di jël si bagage mi di la live di la toroxal yépp maa ngi seetaan mais boobu bëgguma ci woon dugg mais tey la jot nag ma dugg ci ñii dañoo bon ay cagal lañu ay taxawaalukat lañu léegi nag wax ji xam nga lan la ma ne ko naam mu ma léegi danga may jox cinq cent mille ma la ma tourné live bi ci ñoom ma ne ko sëñ Bada mu ne ma naam ma ne ko man de pauvre laa aw ma dara cinq cent mille yooyu nga may laaj nag aw ma ko comme ñoom dañ maa bëgg a yàq damaa bëgg yow tamit nga yàqal ma leen ñoom bala ñu may yàq ndax buñ ma yàqee ma yàqu ndax yàgg nañ maa yàq yaa ngi dégg sëñ Bada ni ma yow léegi amoo cinq cent mille loo am ndax yow gis naa danga maa neex dangaa rafet ah sa tànk yi sa lii commencé di wax sa teem ma ne ko sëñ Bada mu ma naam waaw ma ne ko sëñ Bada mën naa ma ne ko yooyu yëpp buñ fa eeg parce que man damaa am jëkkër wax naa la ko sëñ Bada li ma yónneel sama bakkanu doom ma tourné xool sama wéef mu dix mille nekk ci ma yónnee ko dix mille ak frais mu daal di ma woo téléphone ni ma yow wéef bi gisaguma ko yónnee ma ma ne ko sëñ Bada sa numéro bi nga may woowee TikTok yónnee naa la ci dix mille ak frais mu ni ma yow kay amoo dara ndax lii ni ñaari mbuusu ndox rek laa ci mën a jënd te su ma ko naanee euh, mu jeex te xanaa amoo loo dugalaat ma ne ko man de nii sama wéef amatul dara parce que damaa demoon marché nduggi pour sama boutique ba pare mais am na sama xarit boo xam ne xaa ma wax ko mu yónnee ma la wéef dix mille yaa ngi dégg mu yónnee ko wéef sama xarit boobu yónneel ma ko wéef dix mille cinq cent xaw ma onze mille onze mille waa ak ak kii muy ñaata muy vingt mille xaw ma vingt et mille yooyu yëpp capturé naa la ko Adamo yónnee la ko. yëpp maa maa ngi dégg léegi sëñ Bada ma ko yónnee wéef bi ci guddi gi la ni ma ñii dinaa leen taalal laay tey nangam taan seen ndey ñoom ñaar te effectivement taal na laay bam ci guddi gi taf foto aram wax ci moom tuuti. ñële ëpp la doole ci xaalis rek mu tourné. ci laa ni kii de ci laa ni kii de day fen kii ñi muy wax naan ñoo ko jox un million sax joxuñu ko un million man dem naa sax ba ni lii piège la mais ma ni xaaral ma teey xaaral ma teey ndax comme yàgg nañ ma tegal piège xaaral ma teey léegi bi ko ñamalee live bi nag ci la commencé nag muy démb tey ma xëy suba sëñ Bada woo ma te bi may tëdd ci lal bi lépp laa wax sama jëkkër am na appel yoo xam ne sax bi may woo dama ko taalal sama jëkkër muy xool ma naa kii dafa réew xam naa day tooñ rek ma xëy suba toog sama jànk bi sama place mu woo ma ñetti appel ñetti yëpp laa wuy benn bi mu woo ma ni ma man damaa bëgg man a yow ñu nekk waaw sa jëkkër bañ koy ma ni ko sëñ Bada mu ni ma naam ma ni ko sëñ Bada bakkanu doom mu ni ma naam déglu ma rek Adamo ma ni ko man bi maa ngi dugg sama quatrième année de mariage ak génn waa léegi ma am cinq ans mariage ma ni ko musuma mooy sama jëkkër te duma musu mooy sama jëkkër te boo ma tegalee kaamil alxuraan bi ma waat ko kon du ci yow laay tàmbalee loolu mu ne ma waa kon man bu man naa la fóon rek wala ma raay la ma ni ko waa sëñ Bada léegi man sax am naa benn kër bu ma am fële ngexoo kër goo xam ne am na piscine ak yëpp mën naa la ko abal sax nga dem fa nekk fa ak sa wala ken sëñ Bada ni bëggul nag continuer di insister ci laa ko saaga wee ndey nag ni ko boo ma woowatee dinaa la nangam taan sa ndey sëñ Bada ni ma man ngay waxal ma ni ko waaw mu commencé di ma def ay menaces ma ni ko gis nga yow li la dugal ci man génneewu wula ci man ma ni ko maa la ëpp bopp mu ni ma sa bopp bu ndaw ba ma ni ko yow xanaa xama man jinne laa ni ma koy waxee noonu mu rek mu ni ma ragaj coupé. kon sëñ Bada kiiman daal loolu tax mu tourné affaire yi. déggoo ma de damaa toog di wax ak di defaral benn cliente périg périg baa nga fa sax joxaguma ko cliente bi. rek ñu ma ma sëñ Bada lay laay lii ak xam ni kon man ci piège laa tombé woon léegi nag moom audio yi nga ko yónnee. di yi nga ko yónnee naan ko laay falal kii nu mu tuddati aram. moom lay moom lay yónnee moom naan yaa ko njëkk a vocal ne ko pour mu yàq aram ci loolu la ni basé wu te fekk na ñoom aram ñoo njëkk a dem ci ñoo njëkk a dem ci moom yow nga doog a yow li li nga juume mooy sëñ eh, Bada waroo ko woon a sax envoyé ay vocal parce que day dañuy yaakaar ne xam nga la moo tax ma en dani Elisabeth Korea moo ko fay un million pour mu live Elisabeth mooy kii commentaire boobu maa ngi ko capturé teg ko fii te effectivement doole la ñëwee parce que si suba ba léegi sëñ Bada Kéemaan mi ngi may. lay laay fal de di la yàq lu ne dëgg la kay sëñ Bada Kéemaan. fii la ñëw ci ñetti fan da ngeen ko war a soutenir famille bi yëpp dañ koy xeex. yow ma dara nag waaye am naa yàlla am naa sama te moom dafa pauvre te keneen ki day cagatu Adam Dieye mooy cagatu. di jox yaay gi di mbaraan kii deful dara day sëy lan la la sa yaay nga sëyeeg tubaab yaayam tubaab la bëggoon mu sëyeen mu bañ mu sëyeeg jëkkër aadamoo aadamoo maa leen ëpp bopp ndax boobu ba léegi ñu may jéemal sottiwul yóbbu Elisabeth Korea ak aram man ma nee nañ ma kii mooy Elisabeth bokkul ci famille bi nag moom kay aram la jëlaale ak yaay gi waaye seeni ñu ñëwati Thiès pour porter waat ma fi plainte luñ ma jiyee saa buñ ma jéemee laa rek na këpp seen kaw. léegi nag eh, mais mais Seynabou fàtte nga fàtte nga tamit sëñ Bada Kéemaan lim la wax ci maam Ndiaye Savon ak ñeneen ñi faa nga leeral ko fi sëñ Bada Kéemaan moo ni ma maam Ndiaye Savon au lieu da koo bañ bañ jim ko bañ nag moo tax mu koy xeex te te nag képp ku laal maam Ndiaye Savon dina la laayval dina la waxal lii pare dugg na ba ci ndeyaa bote ndeyaa ba. allo. bu ma kenn woo. téléphone waaw dan lay dan muy dagg. acca demal mais am na benn politicien. ma ne Ndeya Abote mi ngi jugal Maam Ndiaye Savon waaye ku laal Maam Ndiaye Savon moom moom xale bu góor bi moom euh, Bada ba sëñ Bada Kéemaan mii yàlla bu ma ko xamante sama àdduna nee na Maam Ndiaye Savon xaalis la koy jox. démb nee na ma Maam Ndiaye Savon xew ba mu demoon xaw ma fan. Euh, non grand théâtre bi la Kéba Seck la ko teg na ko taabalu. waaw may ko xaalis bu bëri. waaw te moom nee na ma carrément man damay liggéey ku ma jox xaalis ma yàq la moom Georgie moom politicien bi mu joteel xaw ma politicien ban waxoon na ma tur bi dama koo fàtte kii jàppale ma politicien. dégg ngeen sëñ Bada nee na maam Ndiaye sëñ Bada nee na kii même maam Ndiaye Savon da koy jox xaalis pour muy saaga ay nit te du noonu la leer na. waaw loolu la wax léegi sëñ Bada ci boppam moom nee na ma xale bu góor euh, bi ne ci internet bi politicien bi. nee na moo ko fay xaalis pour mu yàqal ko Dior Dieng. waaw moo gën xaw ma ko topp ma gaa moo moom moom sëñ Bada Kéemaan moo ma ko wax man. Hmm. yamul foofu lii moo tax ma naan maam Ndiaye Savon bu mu duggalanteeg ay Bada Kéemaan. te boo ko deex lu lay maam di wax. xaw ma ko sax dama koy gis tey dugg ci laay fam di wax ak moom. na bañ moytu boppam rek maam Ndiaye Savon waaw. na ndikku ci boppam moom moom moom moom xale bu ci boppam nee na ndikku moom. mooy toog di yàq maam Ndiaye Savon ndax dafa siis dafa soxor ndax ndiku li maam Ndiaye Savon am mënu ko am ndax maam Ndiaye raw na ko te maam Ndiaye ñu ni ketal ko ba mu am trois cent mille ma loolu fu ma ko xamee ak ku ma ko wax kan moo ma wax la gis nga nit ki ngay yàq danga ko xamul waaye boo ko xamoon di nga xam ne laal laake kenn du ko laal lii yépp sëñ badaa ko fi wax ne ma nag man damay liggéey donc ku ma fay sa xaalis ma ni ma yàqal ma diw ma yàqal la diw ñi la fay un pour nga yàq ma nag doxal nga ko ba mu mat ndax yàq nga ma. mu ngi noonu gars yi leer nan dégg ngeen li mu wax lépp. ak ni mu nettalee kaa bi. léegi nag. ñàkkul ne am na ñu bëgg a dugg leeral. léegi boo bëggee nag mën ngaa wax li tax sa yaay tamit génnee la sa kër. sama yaay nag li tax mu génnee woon ma sama kër. adduna bi yëpp xam nañ ko. adduna bi yëpp xam nañ ko. waaw dama amoon say bu neex yàlla ni woon waa yedd neexatul nag problème yi tàmbale mu jël lépp xëpp ko sama kaw ànd ak sama rakk bu jigéen ba xëy génnee ma këram gàll ma bëtutu njurukaay toj sama alal ma dem dem boobu ma dem nag moo ma may jom ba tax ma dem inscrire benn école bu ñuy naa AEDEC boo demee ca école AEDEC di nga fa fekk samay archive foofu laa dem inscrire fa laa defee euh, troisième ba am sama BFEM fa laa defee seconde fa laa defee première xool xam ne jàng waruma ma dem inscrire dem defi ji école de formation coiffure sama loxo yi mën dara ñaanuma kenn saraxuma kenn. jaayoo sa bopp tamit baraanoo ma am jom. waaw mais ko mais ci kaw live bi en coiffure. ci kaw live bi sa mag bi nga nee na yow yàqal nga ko ñaari mbaraan moom moo may dégg de kon mbaraankat la cagala moom moo ko ma dégg tey mu ne yow yàqal nga ko. ñaari mbaraan moom moo ko tal. man de xam naa man maay kan sell naa sell boo xam ne saa bu ma toogee ba deux heures du matin maa ngi lal sama sijaada di jaamu yàlla. di ñaan yàlla seeni pexe yàlla na këpp seen kaw wallahi azim ba tey ci fajara ci mujj ñi xamoon nañ ni seen pexe dina këpp seen kaw. mais yow tey jii ku la pare woon pour jubóole la sa yaay pare nga parce que sa yaay rek a ci jaaxal ndax yaay daa foon. jiboowuma tey jiboowuma suba jiboowuma gannaaw suba ndax li ma denc sama biir xol bi maa ko ci ngëb ba mu wow kii di aram jiri jee nag bu dee woon tey man duma ko jaal ndax yàqal na ma ci àdduna loo xam ne côté jubóo moom soxlawuma foofu waxatuma seeni wax nañ doxal ma doxal. mais Elisabeth mii fu ne da koo wër ci àdduna bi naan da jox bitig nga di ko liggéey nee nga nga jël ay millions sàcc xaalisam liggéey ko di fa sotti ay saafara. ma ma dellu si ci boutique bi. waaw boutique bi. ñëwal ci bitig bi. Elisabeth mi ngi naan maa nga tëdd sama kawlal rakam bu ma bokkal ndey ak moo ma woo ni ma jugal jugal jugal sa mag ngi lay liggéey vidéo boobu mi ngi ci internet bi tasaaroo fa sa mag bu jigéen mi ngi lay liggéey Elisa jour ba muy jël si bagage am live la def bëccëgu ndara kàmb àdduna bi yépp di ko gis mu toroxal ma ba man ni torti jour ba guddi Elisabeth ñëwaat aadamoo defalaat ma ay boo gisee te divorce bi duggee ma ni comme ku dof di saaga ay ndey di wax lu ne ma xëy dimanche laat ko live pour setal sama der ñu jël sama live def ci ay collage doomu Elisabeth Correa a ak papay doomam wax ci du n'importe quoi lool moom ma yóbbu cybercriminalité ma def fa ñaari fan ah yow jot nga cee dem cybercriminalité jot nañ la faa yóbbu amul ay moyen dem naa ci dem cybercriminalité ba def fa ñaari fan waaw Elisabeth di wër ci àdduna bi yëpp naan cybercriminalité un million cinq cent laa fa joxe ñu sama loxo bàyyi Zeyna Dieng mu dem fu ne mu wër fa di ko fa wax ci àdduna bi xale bi solal ma witt ni du ma nooy te Elisa mi muy waxal li bokkul ci famille bi de moom moo dugg seen famille tas seen famille Eh, koromp koromp eh, eh, rakkam bu mu bokkal ndey ak baay tàqali koog yaayam famille bi tas ñoom ñëpp ñu ànd ak moom parce que kii am na xaalis kii nag pauvre da daa gëm boppam du jaay data bokkut ak rakkam ji nga xam ne moom mooy alam jee ñu bokk ndey ak baay muy jaay data bi di mbaraat di xaalis bi di wax yaayam kii du def loolu kii jom la am Elisabeth Korea ba ma yóbboo cybercriminalité fanaanal ma fa ñaari fan def naa fa ñaari fan amul kenn ku ma bokkal ku sant jee ku fa taxaw maa massawuma wala nga wax ma lu ma metti ku dul sama jëkkër maa ngi koy gërëm di ko sant moo ma fa fekk moo dagg ay nelawam te camion fekk ma fa te bi mu paree ñu si weer xew xewu yi ñëw mooy seen koor gi eh te ñu ndogu Elisabeth ca internet ba nga laxu Elisabeth ca internet ba Elisabeth di laaj dugal sama yaay ci laaj bi mu ciy dugg waaw sa yaay kay duggoon na sànq sax ci laaj bi sëñ Bada waaw léegi man da ngeen may jibooleeg sama yaay maa lànk ba kaare man maa leen suur waaw mais léegi euh, euh, Elisabeth li tax muy wër nit ñi li muy wër nit ñi naan waaw li tax Elisabeth di wër ci nit ñi ku nekk naan am damay woote laajte ndax suñu waa kër ña nga fa buñ ma nee nekk nekk nañ fa xew moomu dama koy araamal du ma dem man fu sama noon nekk du ma fa traîner bu ma wootee ñu ne ma nekkuñu fa ci laay solu ba jekk dem mais nag xam nga lan mooy problème bi soxna si bu bëgg naa laa jàppale trop mais xam nga yaay nag dadul morom yaay lu la mën a def yaay la yaay déggal ma la bu dofoon yaay la bu dee naan sàngara yaay la buy cagatu yaay la buñ ko kattee yaay la buñ ko violee yaay la bu dee dajale ay nit di leen cagalutoo yaay la yaay moom amul morom foofu rek laay mooy sama sama sama problème su ma sañoon nga jubóog sa yaay loolu laa bëgg ndax man damaa bëgg sama yaay bot ko rogamti ko soxlawuma ko sama vie ngi dégg aram jëyi garaaw ndey ak baay ngeen bokk boo nee suur nga ko papa léegi la fi wax leen ak aram aram moo ma sonal. ah keneen daa ñëwaat. bas xam naa ni man ak yéen ñoo bokk ndey ak baay. waa xam naa loolu tànk yi leen indi tey tànk mbokk moo leen indi. waa. ah keneen daa ñëwaat. yow nga day gën a doy waar quoi yow lañ doon wax yow sama boutique jël ay bant. roofal ma ko bas tojal ma fa ay nen yu ñu xaatim ba mu feer roofal ma ay bant gëm naa yàlla moo tax ma ñëw jàmb ko ak sama loxo dugg sama boutique barki yow xanaa ko noo gëm yàlla weesu na man bu doon man la bu doon man la ma daw aram na ba aram na ba aram na ma bàyyi waaw yaa gëm yàlla kay. waaw mais nee su woo njabootam dajale leen lii yëpp du ci am. Oh. yaa ngi may dégg. ma yaa gëm yàlla yow mi fekk ay nen yun xaatim tegal la ko sa bitik nga jàmm ko jàll. ma ñëw jël ne yi boo duggee mi ngi vidéo baa ngi sama biir toog ma dugal ba pare yamuñu foofu de ñu jël ay bant dugalal ma ko sama bant fi ma war a ibbee caabi ba mu fees damaa mujjee woo ma ni fay ko. gaa yi kii dama koy jàppale nettali woon na kaa bi ni mu demee léegi léegi may may ma tuuti Seynabu Seynabu Seynabu bu may ma léegi gaa yi damay nettaliwaat kaan bi kii man maa ko woo xam nga lan moo tax ma woo ko dama ko doon jàppale ndax damaa dugg ci laay fu sëñ Bada fekk rakkam bu mu bokkal ndey ak di ko fa yàq yaa ngi dégg nekk di nettali ay affaire am ànd ak Elisabeth mii nga xamante si nii bokkul ci famille bi ñoom ñu bokk ndey ak bàyyi. te commencé waatal ba déglu rek mu wax la lan moo tax mu woo waxal waxal sama rakk bi lu tax nga woo ma. bas damay wax man la Adamo mais du ma wax sa yaay lu ñaaw xam naa ne loolu metti na la. Mm-hmm. waaw kay bas damaa seetaan tey laayifu Serigne Bada Kéemaan ma fekk fa aram jéey aram yéeg ci kaw di yàq kii nga xam ne moom mooy sëy na bu jéey ma yéeg ci kaw live bi ne sëñ Bada arrêtel lii affaire de famille Jules Dieye moo ma yuuxu ne ma xamoo famille xamoo affaire bi ni mu demee ma ne ko arrêté affaire de famille la après ci laa xam ne sëñ Bada dañ koo fay xaalis pour mu yàq ko comme que kii amul xaalis te man ñi leen di fay maa leen ëpp xaalis la. maa ko contacté may ma ma ñëw. pour ma pour l'instant comme problème bi agsi na la quoi pour l'instant familial la mais yéen indi ci bi de pas voilà léegi nag ngir yàlla ñun xoolal eh, bàyyi ñun ñu gérer ko rek quoi xoolal en tant que famille quoi ñoo xamante ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi quoi kenn dàqu ñu quoi. ñu tàmm fii na. gis nga moom comprendre lu woon mais yow explique nga ko ko instant bi ba mu comprendre. léegi parce que ñoom comprendre ñu. xam nga ñoom déjà xamuñu ne sama rakk bi daf maa laay bal. xamuñu ni sama rakk bu aram Julie Dieng dafa yëg ci live ànd ak sëñ Bada pour ñu ma ñoom xamuñu loolu ki ñëw sànq papa. waaw xamu ko Basiru xamu ko. <laughs> léegi léegi. Uh-huh. Euh, ma léegi. waaw euh, sa mag na na ngeen gérer ko affaire de laa doon wax ci live sëñ Bada. aram Dieng bañ na du ma dem. gars wuy ma gars yi yéen ñi ma doon seetaan gis ngeen ba ma yéegee ci live sëñ Bada dama ne ko affaire de famille la. Uh-huh. bu bu réglé leen ko entre famille waroo leen koo indi ci internet bi seetaan ngeen ko yéen mag gi naan ma sa yoon newu ci affaire bi ñoom ñoo ko indi ci internet bi léegi nag ku dee ci marché bi yaa yaa tàgge sa bopp wala du dëgg ñun ay nen yu ñu xaati mag la ngeen joteeg euh, sa yaay génn beeg nam fa demee xamuñu ko yéen a ko indi ci internet bi waaw wala déet pourtant man am naa problème ak ak samay ak samay parents ndax sama famille dafa yaatu mais mosuma koo indi ci internet bi parce que man dofuma affaire de privé la Adamo sëñ Bada Kéemaan mooy. boo amee ay noon da ngay xam ni ngay doxale affaire de famille day des affaire de famille. lépp ci boppam la këpp. waaw sëñ Bada Kéemaan moom. Hmm. nga xam ni nee na moom dañ koy fay xaalis day liggéey ku ko fay xaalis mu ni ko yàqal ma doomu Adama mu yàqal la ko sëñ Bada Kéemaan moo indi problème bi yëpp. non non problème bi yëpp aram jéy la ak sa yaay. sa yaay warul woon a ca live ba di wax. sa yaay ak aram jéy la. laay bu aram laay sa yaay boo ko gisee mu muuru boo gisee sa yaay mu wu mel ne ku jógee Éthiopie da nga yaakaar ne ku baax la yaa sëy daala waaye day de ko ne de. man moom sama yaay wax dëgg fa neex yàlla mënuma koo wax dara lu mënuma koo wax leen na ndax na ba mënuma koo ti hmm. gàtt mënuma ko sotti mais ki nga xam ne moom laa bokkal nday ak baay muy aram jee mu lëkkaloog sama noon di ma yàq fu ma tànk bu ma teg ñu damm benn baaraam loolu laa bëgg mu dakk ndax lii mais yow yaa fekk fu ñuy néewal. maa la woo de dan la doon néewal doole ma ñëw di la jàppale. waaw xoolal. waaw nee naa la Seynabou Dieye dégg Seynabou Dieye déglu ma wax la gis nga Sénégal. maa fa daqa live lu ma kaawul baaxul xam nga ñoom sànq ba tey ñu ngi ci internet bi est-ce que kenn kenn kenn ñëw na di la woo kenn ñëwul ci yow. salaamaaleykum la wax ñoom ñëpp ñu tiit ak sa kër gi ñaari yoon nii am nga ko te ba à tout moment sa yaay mën naa ñëw ah. waaw te maa ngi sa numéro téléphone. à tout moment sa yaay mën na déplacé wu ñëw man la Adamo nan rek la rek. waaw waaw. nan bëgg rek ma naqareeti dinaa la jox vidéo ah. comme dugg nga sama yëf ba ñëw xeexal ma. maa ngi rek dinaa la bind woo la. ok waaye sëñ Bada Kéemaan moom lii xaw ma lu ko ko jaral. Hmm. xaw ma lu ko ko jaral na delloo si waat xelam ta xam ne mën nañ la fay ay milliards pour nga yàq doomu aadama hmm. nga jël xaalis ba bëgg ko jëriñoo mu taalu tàkk te du la jëriñ. dégg ngeen sëñ Bada Kéemaan li mu wax kii du samay wax de nee na sëñ Bada Kéemaan ba mu koy laaj xaalis da ko waxaale ne ko même Maam Ndiaye Savon moom moo koy défendre même Maam Ndiaye Savon moom mooy jël xaalis di ko ko jox pour mu